Eh, di leen jaajëf bu baax te di leen ndokkeel ci ànd gi xam yéen a ngi ànd ak ñun ci suñu émission yaru ak yare eh, niñ ko baaxoo def saa su di ànd ak ci suñu plateau ci studio yaatal mbind alxuraan karim eh, di si amal waxtaan woo am am solo wi nga xam dañ si ànd toujours ak suñu mbokku daara sëñ Maxtaar Kebe muy émission yaru ak yare di si jàngale comme niñ ko baaxoo di defee toujours rek loo xam ne danañ tax ñi nga xam ñoo nekk si daara yi alxuraan yi ak ñi ñoo nekk si kër yi. ak ñi xam ñoo nekk si liggéeyukaay yi naka la ñuy mën a def ba lu si nekk mën a doxee ni mu doxee ni war a doxee ay résultats di si juddoo te du ànd ak ay gàllankoor ñu si weccante ay xalaat ak di si laabirint ak mbokki jullit yi waaye di soññ ak di sàkku ci mbokki mboolem jullit yi ñi nga xam ñu ngi ànd ak ñun ñuy abonné ci suñu seen yaatun bind alxuraan karim ngir lépp loo xamante si nii eh, dañ ko si dugal rek mbokk yi ñu koy mën a jot di si weccante ñun ak ay xalaat xam naa ba lañu dugg si émission bi Euh, dañuy bàyyi sëñ Maxtaar Kebe mu nuyoo incha allah rabbi ñu tàmbali waxtaan. jërëjëf sama mbokkum daara sëriñ Mbàkke Sourang asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bokki jullit yi bokki taalu yi ñu ngi nuyu ñëpp tey siyaare ñëpp tàmbali nuyoo beeg siyaare bi ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahullahu wa raa wa waffaqahu wa tawalla di ki teg njabatuk sëriñ Tubaa gépp waaye di nuyu bokki jullit yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi. sëriñ alaaji sëriñ Seck ñu ngi koy nuyu njiit njiital C3S e ak ñu mbokkal liggéey bi ñëpp sëriñ Fàllu ak sëriñ Daam ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci boobu boobule di nuyu sëñ Moustapha Sarr suñ technicien bi ak sëñ Mor Silla mi nga xam ne ñu ngi bor a ànd léegi ci kanam ci eh, boole alquran kon nag seen mbokk seen xarit Makhtar Kébé Cheikh Salim Mbacke moo ñëwaat ànd ak xaritam di rakkam di léppam sëriñ Mbacke Sorong ci yaru ak yare Euh, macha allah sëñ Maxtaar si muqaddima bu am solo boobu di tey nag ñu dikk si waxtaan bu ama am solo parce que dañoo toll si euh, ubbite école loolu nag engage jullit yu bare bare bari ñu war a jël seeni doom jëbbal leen si ay jàngukaay ñu war a jàng ñenn ñu jóge si alxuraan mokkal ko war a yéegal yokk seen xam-xam loolu nag nekk ay mbir yoo xamante si ni mbir yu xaw a sensible la waaye nekk mbir yoo xam yu bari ay gàllankoor la xam naa danañ ci dikk si anam gën a yaatu mu jëm si wàllu éducation waaye bala ñoo dugg si émission boobu incha allah dañuy fàttali mbokk yi ni jamono ji ñuy waxee yéen yaatu na bindu alxuraan karim muy concours bi nga xam ni euh, C3S mi ngi koy amal jamono ji ñuy wax ñu ngi si inscription yi maam nit ñi ñu ngi bind seen i kayit di ko déposé si barab yi nga xam ne foofu lañ ko sàkkoo muy fu C3S nekk wala ñi nga xam dañuy liggéey ci rabita bi wala fédération bi kun ci xam boo yëkkatee saw kayit jox ko danañ ko jàllale fañ ko war a jàllale fi nga nekk bu fekkee amul C3S bu ko amee nag eh, nga dem ba sa barab ba nga déposé ko fa ñi ko war a jot danañ ci jot ñu fàttali nag ñu ngi ko tàmbaloon ci 16 eh, septembre mu war a jeex 16 octobre bii xam ne kon di si des mel na ni bëreetul si maxtaar kon dafay aaje nit ñi ñu gën a bàyyi xel eh, liggéey boobu ndax koo xamante si ne àgg nañ la 16 te déposé woo Euh, boo sàggantul 2026 nga jëmaat ndax ndax ndax toujours concours bi euh, bu ñu ko defaree si at mi dañuy jëlal maanaam at mi. Mm-hmm. ndax li dal Sénégalais yu bare bari dañuy yeex dañuy bàyyi ba si mujj gi euh, ñuy njëkkante te jàpp naa ne bu ñu xësee àgg la sees moom pexe mënatu see am kon li si des bëreetul ñu ngi soññi mbokki jullit ak mbokki taalibe yi nga xam ne mbir mi yitteel na leen. Mm-hmm. ñu fexe ba gaaw dem yóbbu seen kayit pour déposer tey ñuy xamale ni itam yëf ren dañ ko yemale ci 40 képp koo xamante si ni am nga lu ëpp ñeent fukki at concours bi mënoo see bokk te amaana am na si ko xam ne benn at ak côté am 40 ans wala at tuuti kon bu ko bii rëccee moom euh, daanaka da si man da si daal di far euh, génn kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te xam itam C3S euh, ci ndimbalul c di siyaar bu baax alaaji Serigne Seck ak sëriñ Mouhamadou Fadil Seck suñu daam Touré ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci société bi ñaan borom bi taala gën leen defal ay xéwal bu baax ndax mooy delloosiwaat mbindum alquranul karim ndax am gum am cosaan ci diine ndax ku ne xam na ni mook jàngi ñoom ñaar ñoo lëkkaloo woon te léegi rek ñuy waxtaan man la suñu borom de lu mu dem ba di si giñ mën na la waat ne loola am na sew-sew bu si nekk noonu la giñee si nuun wal qalam wa maa yasturuun kon bind googu képp ku ñu ko yombalal eh, ngir jullit di ko gën a bàyyi xel loolu ab liggéey bu kawe la ndax yonte bi sallallahu alayhi wasallam daana si fayal ay sahaaba ridwanullahi alayhim ñuy dem di jàngi bind kon lii day mel ni loola haasihi min tilka kon day mel ni lii ca loola la bàyyi ko kon ñu koy def eh, ñu leen ñaanal wax suñu borom gën leen sàmm waaye gën leen yokk seen man-man yokk seen barke ak mboolem fu waaye di yëngutoo ci lu baax rek yàlla na la borom bi taxaw ren ji nag ñu def si ak jàppandal Cheikh Makhtar ndax yi passé ku mosaa jiitu eh, six millions nga ki si tege cinq seize ans ku mujj ki cinq cent mille ren jii nag ñu def si ak jàppandal kii jiitu ci concours bi lépp dafay am sept millions cinq cent ki si tegi am million trois troisième bi am six millions cinq cent te loolu ku ne xam na ni ak euh, ak jàppandal la ak bëgg nit ñi bàyyi xel liggéey bu am solo boobu ndax li si am solo rek mooy yow xam nga ko ma xam ko nit daana bind ab kaamil jébbale ko te yàlla rek tax waaye ñu neexal la si ñaari junni walla ñeenti junni ak doonte loola lu foor la am na sax dayob million wala milliard ndax ka la ko jox moom yéene la si jublu ak ak ñaan waaye ki jógee si loolu nag ñëw ba agsi fii da xam ne kon jàppale ñooñu alxuraan rek ak soññ leen moom mooy jubluwaay bi Cheikh Makhtar kon soññ mbokk yi rek ñu gën a def pësteef si liggéey boobu te xam ni li si des nag bëritul ndax le 16 octobre si la ñuy arrêté lépp loo xam dafa jëm si euh, inscription yi Cheikh desu ci mën a tegaat lu bari ndax leeral nga at yi yiñ ci war a dugge leeral nga it li ciy fekk ki ci bokk ba gañe leeral nga yit fi war a joxee li tax a bokk muy dépôt yi kon daal la ca desaat mooy li lay tax a mën a bokk daa bokk teg li lay tax a mën a gañe mm. li lay tax a mën a bokk mooy da nga bind aw kayit yóbbu ñu xool kayit wa xëy na kayit buñ ko càmbaree benn càmbar càmbaraat ko beneen càmbar bu njëkk bi mooy fi ñuy segge ñi war a dem premier ci ci tour yi ba ca des mooy fa ñuy segge ñi war a dem deuxième tour loolu lépp nag mi ngi sukkandiku ci Pastef ak yëg gi nit ki am ginnaaw bu bokkee nekk membre fexe ba tàggat sa bopp ci def tërkiis mooy lépp looy def na nga concentré wu ca ba ay njuumte bañ la ca dal ma ma mawaaqidi la jox muy rendez it nga nga nga fonk ko ci muy kii kii nga xam ne mooy bind ak ki koy toppal ak képp koo xam ne dara nga ci mbir mi kenn ku nekk respecté say normes yi nga xam ne moo la moo la fa bàyyi loolu dana dimbali ci ki nga xam ne daa bëgg am ci li ñuy xëccoo mm-hmm. li nga waxaat léegi ci ñi koy def nit daana bindub kaamil joxe ko rek ñu tofli ko aw lor mu dem ñibbi am na nit it bind na kaamil joxe ko Cheikh Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba nee na bi mu nekkee nee nañ bi mu nekkee njaareem ku masaan andi ab kaamil lam lay jox boo demee la seen waa dëkk bay mm-hmm. ca nawet ba lépp da nga mën a jënd mm-hmm. kon kooku yaakaar naa ay millions la ci daan joxe kon mm-hmm. ndax booba mbay mbay mbay mbay sakkan na te bind kaamil ci nawet bi ñëpp xëy di bind di dem tool ci lay bind kaamil moom toog ca kër ga di bind su noppee nag. képp mu jox lu wàcc lu nawet. waaw ñu def ko ñu jox ko ca lu weccim nawetu boppam ak nawetum ñam dëkkal ndax buñ ko defoon <laughs> buñ ko joxoon dund bi ren ba déwén sax baax na hmm. waaye lañ bay ci dëkk ba ci dugub sëb bisaab yëpp mën na koo jënd desal hmm. kon ba tey kon alxuraan sëñ Tuubaa jëkk naa wax ne la kon buñ demee ba ci kanam jombul gis nga ne itam ba lii ñëwee ci waa këram la feeñ hmm. day mel ne moom daal li muy leble waxtu nekk suñu borom daf ko koy fayal daf koy fayee kon nag euh, ñi yëkkati 6 million baaxoon na ñu yéegal ko ba 7 et quelque. Hmm. lépp ñu yëgalaat ko diggante différent yi nga wax ni daa mel ni 1 million 1 million 1 million la. loolu ak yokkute la sëñ Mbàkke hmm. ak ko jëm kanam nga xam ñoom boo koy xool daal dama ñoom dañuy sponsoriser alquran waaw ah, kay dañ koy sponsoriser te dañoo dégg li sëñ bi waxoon wajal bi jaay muntaqa xayaati riayat ah, la émission bi mi ngi daw waaye ah. sharika nangam ñoo koy riaya moo koy riaya ñoo koy sponsoriser moo koy sponsoriser hmm. su boobaa nag eh, li nga wax doy na ci hmm. waaye kon ñi ci bëgg a dugg nañ xam ne li leen ciy tax a mën a bokk moom mokkal ak ànd ak sam xel ak wut a gañe ñi ko def itam liñ ñu jublu mooy li leen yàlla sama borom may ci àdduna ñi ngi ciy sédd ki gën a mat a sédd muy dusturul muslimina muy alquran asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, kon mbokk yi ñu déggee ko noonu ñu fexe ba góorgóorlu si rek comme ñu ko waxee euh, te xam ne nag li si des bëriwul di ñaan nag mbokki jullit yëpp euh, ñi si bokk ñëpp suñu borom tabaaraka taala defal leen tawfiix ba kenn ko si nag lu siy sëb cër rek suñu borom sédd la ko si anam gëm gën a rafetee day ñëw si ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen gi mhm. suñu émission tey dafa jëm ci ubbite école mhm. maanaam ci octobre bi si la école di ubbi mhm. euh, mu nekk nag loo xam ne lu lu bari ay sew-sew la waaye nag lépp di dellowaat ci xam-xam ndax bindikat yi dañuy wax ni pour nit ki mën a garder ndondoom nit ki pour mu mën a développer gox bi mu dëkk fokk mu am alal waaye fokk mu am xam-xam ñaar yi ñooy daje. Mhm. nit ki doog a mën a taxawal lu sotti. moom la bindkat bi naan bil ilmi wal maal mhm. eh, yabna naasa naasu mulkahum lam yubna mulkun ala jahlin wa iqlaal amul genn nguur goo xam dañ koo tabax ci ak ci ñàkk xam wala ak ñàkk kon mhm. fokk xam-xam dafay nekk kon fokk alal dafay nekk ñaar yi nag boo amee te tegu si ay loxo yu jub fokk nit ñooñu fi ñu bëgg dem ci wàllu àddina Euh, mën nañ faa dem non seulement dañuy gis ñi xam dañoo jubadi sax mhm. waaye am na ñaar yooyu dangay gis ne wàllu àddina dañ ciy kawe mhm. kawe goo xam ne xam-xam mhm. moo leen ko may ak ak alal kon buñ tollee ci période bi nit ñi war a tànn ay école tànn école googu yan critère la waajur wi wi nga xam ne moom moo meññ doomam l'islam dugal ko ñu digal ko ñu war koo yor jàngal ko bu demee bay tànni école est-ce que dafa war a xool école bu luxe wala est-ce que dafa war a xool école bu siiw wala dafa war a xool école boo xam ne mën nañoo jàngale kon day mel ni suñu première question mooy ban école mhm. bu mel nan la waajur yi war a tànn mhm. pour dugal fa doomam ngir li muy séentu mu mën koo am jërëjëf sëriñ Mbàkke anta ar rajulul munasib fil makaanil munasib hmm. sa place fees nga ko bokk yi kon ñii ñoo moom émission bi ñi jur ak ñi ñu jur ak ñi dénk li ñu jur ñoom ñett ñoo ko moom ak ki bëgg a jàpp ci li ñu jur ñeent ñooñu ñoo moom émission bi liñ tuddee école nag njëkkës muy am bàyyi daa am ak yaay am doom sëriñ Mbàkke doom ni mu foore fëlfatul këbët ci res la jóge dañoo coppati sa res wi tegal la ko sa kanam ne la sa res wi lii ci jógee hmm? kon fonkeel defe naa fa la wan a nit lu jóge ci moom léeg nga ne saa mbubb mi sax téye ko mu bukk ak ni ngay téye mbubb keneen saa mbaxana mi waaye nag saa res wi maam ca daggeetu res daggeetu res naan ku li tudda doom dafa dafa dagg ab cëram jox la loolu la falsatul kabat la ko arab tuddee su boobaa nag kon nit ki lim jur ak jur ni mettee yar metti dépense yi jafe nga dem ba lenn dese la muy nga tànn fi nga war a tànn pour dugal fa li nga jur suñ bàkki loolu boo xalee xaysiya bi rek responsabilité bu rëy bu rëy la ndax boo wutoon sa mbubb mu rafet ñëw loo ko na nam gën a rafete defe naa boo koy denc ci sa gaal da nga yëkkati ya ya ya màggat jël ba ma bees dugal ca biir muuraat ko mm, mm. te am mbubb dong la am la lu tax nga denc sa mbubb mi denc nu mel noonu saxarum baali baali mi nga yóbbu ko ca ginnaaw néeg ba mm. kenn du ko teg bët ba noppi sa doom ji nga di ko sàggane même pour yoo balaa kenn àgg xar mi àgg si si yow. balaa kenn yóbbu xar mi yóbbu la. lu muy laaj nga def ko. léegi nag nga jël sa doom ji yow sànni ko rek ci ku la neex rek yaral la ko. ci koo xam ne suñu boobu nee na qu anfusakum wa ahlikum naara. naara koo xam yàlla mooy na ngeen leen fegal sawara. ok na ngeen leen yar bu rafet. waaw xoolal Mariama. wa ambataha nabatan xasana. Hmm. fi mu juddoo baax na. wallaahi ndeysaan environnement bi. waaw waaye yar ba nag daa mat a tànn Zakaria lañ tànn ca famille ba bépp ni ko kii yaanu ci doy maam daal juddoo na fi mu war a juddoo waaye daa war a yaroo ji fa mu war a yaroo yaroo na fi mu war a yaroo ok foofu foofu fokk nga am lu ijaabi lu positif léegi nag su boobaa wa am bataha nabata buñ ci yemoon te Zakaria kafaalawu ko lu ne mën na caa feeñ léegi nag kon sa doom ji jur nga ko fi nga ko war a juree mm-hmm. maay baayam kee yaayam te lépp di dëgg mm-hmm. mais yar ba nag wa kafalaha Zakaria kafaala bi mooy problème cey alxuraanul karim wa kafalaha Zakaria te gis nga yar bi bu baaxee kullama daxala alaya Zakaria mira wajadaha rizqan nee na bu wax bu yar bi baaxee xale bi li muy am ci wërsëg jógewul ci kenn ca yàlla lay jóge rek la bëgg a wax laa tastaxil bi rizqi id rabbul wara mutakaffilun rizqa alladi yataallamu hmm. maanaam yow mi jàng bul soxla woo wërsëg hmm. demal rek te njàng ma bu njàng ma sottee yàlla dana ca roof lu la yor hmm. loolu lay tekki kullama daxala alayha zakariya al mihrab wajada indaha am benn daa ñëw tuddal ma benn milliardaire bu mhm. ñu xam mhm. benn journaliste ni ko nit ñi sonn nañ si wërsëg daa ne ko man de jàngu ma waaye xam naa wërsëg moom yàlla képp ko mën a joxe te nee na bi muy wax loolu gis na ni daanaka fu ne si àddina bi am na fay usine daanaka milliardaire la ah. su ma la waxoon tur yi di nga ko xam mhm. ma ne ko pourtant day kooku dañoo jàngal loolu waaye alxuraan wax nañu ko ah. inna allazina taabuduuna min dunillah laa yamlikuuna lakum risqan fabtaxu inda allahi risq nee na bu ngeen di wut wut leen ko sa yàlla mm-hmm. jaamu leen ko te ngeen sant ko delloo delluwaat si moom soo waa mm-hmm. ngeen bëgg di yoon kam mm-hmm. kon ndeke laa tastaxil bi risqi eh, rabbul wara mutakaffilun risqa lazi yataala wajada indaha risqan rek lay teg wajada indaha risqan mm. anne laki hada qaal huwa min indillah ki jàng dëgg-dëgg nee na résultat am lu mu am day xam ne yàllaa ko ko jox fi ne loolu aaya boobu dafa riche sëñ Mbàkke benn riche boo xam ne xaal huwa min indillah indillah yarzuqu man yasaa bi xeyri xisaab léegi nag maanaam foofu tam foofu tam am na sew sew mhm. ndekkee Zakaria bi mu gisee ni Mariama am na lu xew ci diggante moom mhm. demul sa baayam demul sa kenn moom la jàkkaar loolu ne ko lii kon nit ki war nay waxtaan ak ak ak élève am élève am léegi kon nuqta point léegi nag kon tànn école wa ambataha nabatan xasanan xale bi gàncax la gàncax dañ koy jëmbat sëñ Mbàkke ndax da jël sa gàncax jëmbat ko ci suuf su ndóomaan xam nga ndóomaan ndóomaan mooy bu ramaad waaw foo xam ne du sax ñax ramaad waaw léegi soo ko fa defee nu muy mel hmm. dana màgg école bi nag hmm. kër parents yi mooy pépinière bi hmm. fa nga dem jël fa sa gàncax gi réew mi nga xam ne moom nga ko war a jëmbat mooy tokkër bi wala mooy jardin bi sama room yëpp dañ fee jëmbat nga jëmbat fi ma jëmbat fi keneen jëmbat fi kan mooy nangu ñu ne doom yëpp ñu nga maanaam gàncax yëpp kenn ko ne am nga ak fleur mbaa ak darkase mbaa ak dànq ca pale ba di ko sàggan ba muy yàqu wala nga ko jox ku ku ku ko mut a jox ndax dana am kon nag ele école yi mooy jardin yi fi ñu war a jëmbat garab yi xale yi ñooy njëmbat yañ fa war a jëmbat nga xam daal boo ko jëmbatul fi nga ko war a jëmbati moom. lu ko du baax kon ko jëmbat ci moom bu ko sàgganee du baax ndax dana màgg ba yàgg mu lax nga ñàkk. kon nag gone njëmbat la école bi lañ koy jëmbatee boo ko fa jëmbatee ne ko fa duut dem sa yoon te par te te directeur école bi ak enseignant bi ak ñi fi nekk ñëpp amuñ soxla ci njëmbat bi di ko romb gauche droite su ëllëgee ko si biir loola dal yaa ko teg sa kon la waykat ba ndax da ngay da ngay jooy lub naa. te fekk yow yaa ko rey atabki ala lubna wa anta qataltaha aywa qad zahabat lubna fa ma anta saaniu jax na maam yow yaa ko dugal foo ko wata dugal kon li ko dal bu ko jooy ndax li nga jëmb rek loolu ngay gis ok léegi nag kon école yi bari na gone buñ koy jàngal dañ koy yar yar day ànd ak tumuraanke sëñ mhm. Mhm. dama ci insister bu baax baa doola dong mu mënta yar mais mais buur day yar sa atika bi alfi adilla buur day yar buur day yar baadoola mooy yàq baadoola bu amee doom bu amee aw fas dana feeñ ca doom ji bu amee ab wata dana feeñ ca doom ji bu amee ab kilim dana feeñ doom ji bu amee ceeb dana feeñ doom ja bu amee yàpp dana feeñ ca doom ja bu amee ndox mu seet dana feeñ ca doom ja la ko war a mooy dafa munta organiser Assane 2 buru Maroc kuñ xam la Mohamed 6 mii fi nekk ba muy mokkal alxuraan juróom-ñaari at juróom-yett ci la ko man te dañ koo da koo mokkal ci riwaaya yëpp ñu dóor ko ci ba muy bëgg de dee hmm. luxal arabiya bi ni ko manee ak yeneen juróom-ñaari langue yoo xam ne nee nañ mën na ko tem armée ba nekk li fi fi garaat mën a yem ci armée mu door ko mu am ko hmm. door nekk buur Maroc hmm. xam nga lu ñu xam ñun ci buura sa bàyyee fi moom nga nooyal say loxo lu la neex def lu la neex wax doo yàq doo yaxaas maanaam doo sonn doo yëngatu nga xam daal yow sa baay day góor nga ñëw nga ñëw góor nga ñëw day góor nga ñëw góor nga ñëw góor léegi nag buur nag du def noonu mhm. buur day jël soxnaam yar ko jël doomam yar ko ba ëllëgatee mu mën a gouverner mhm. baadoola day yàq boppam yàq soxnaam ba ëllëgi ñu koy gouverner kii mën a gouverner ak ki ñuy ak ki nga xam ne koy gouverner du benn mhm. loolu moo dal baadoola am na école yoo xam ne xoy xoy ja dañ ko habillé dafa am habillage soo dikkee dafa tubaabe te nit ñi léegi boo bëggee lekk seen xaalis rek neel tubaabe. da leen di nax waaw. waaw na peintre bi di lerax lampe yi di tàkk ka fay ñu xool ay couloir gis fa ay xamuñu niveau duñ xool niveau bi duñ xool ñi fiy jàngale ñan lañ nga daa di ñëw nag yëngal sa bi oto daal di gaaw fay ca gisee ba daal di andi sa doom gannaaw suba bu ñëw nga jëndal ko iPhone 500000. Mm-hmm. jox ko oto particulier boo xam ne oto bu bu cher lay doon bu dikkee wàccee ci bunt bi jox ko 50000 wala 30000 ne ko mooy sa ravitaillement. Mm-hmm. boobu xale na muy jànge te iPhone bi di ko xaar boobu xale na muy jànge te moromam yi nga xam ne doom yi baadoolo la ñu ngi ne siiw ñu génn classe bi ba ñu ànd ak moom lekk xaalis bi mu àndaale ci classe bi. nga xam daal dafa maam dëgg ñuy wax confort. waaw ñoom ñaar dañoo war a opposé wu. am nit ki pour mu am xam-xam. Mhm. warul topp warul jéem a nekk nit ko confort daal. alxayaatu rafahiya mhm. muy dund goo xam ne dafa confort. dafay xañe xam-xam. te xam euh, xanaa xamoon ne jàngalekat bu confort sax du jàngale. déedéet confort baaxul ci dara. Euh, maanaam bu nit ku confort ni dëgg-dëgg. du jàngale maanaam du sonn maanaam du créer du maanaam dara loo xam ne ak yàqu mën na saa juddoo. li naftarida mm-hmm. parce que masala yëpp iftiraadiya moo ci gën. Mm-hmm. maanaam nga li nga wax nga nga nga nga sukkandiku fenn. Mm-hmm. waa joo xam ne dafa dem ci école bu cher. parce que li ma la wax ci bi rek ki ñëwaat. école bu ñu habillé jàngalekat yi ñu solal leen ay yu kenn xamul. elef ya sollee bokkut nga tiim alif ne alif la bokkut ak nga tiim baa ne baa la ci ñaari aspect dafa am góor goo xam ne dañ koo seen muy julli si muy julli si muy julli si ci te mooy imam bi mm, jàkka waaw korite la góor gi bi muy ñëw cawale yim sol ak mbub mi ni muy niire boppam benn waaye ne bu dikkee bu taree dana gag mm. waaye ne ko yow yaa ñëw ni mu soloon la ko jànge daal <laughs> ci la ko jànge mu ne ko yow li nga wax mu ne ko bu taree dana gag ah, dafa jekk ngemb waaw léegi nag bi mu ñëwee ak tari gag waaye ñu ne ko foo ko mu ne bi muy ñëw àndaalewul fàtte ne ne day julli si da doon wane si boppam waaye gis nga élève bi dugg ci biir eh, classe bi jëpp ne day jàng si waaye dafay da dafay défilé wu dafay défilé wu du ma sa am du ma sa am niveau effectivement loolu am na moo tax ma ne la dafa am waa joo xam ne dafa jël ay doomam yóbbu leen ci école bu cher di leen fayal sept cent et quelques mille hmm. xale bu ne cent trente mille ñetti xale yi xam nga kon trois cent soixante mille sans inscription cent mille ba noppi nag mu ne ko ñu ne ko da ngay jaar fee defe jox fan joxe fa vingt cinq mille da ngay joxe fee quarante mille ba mu xool daal lépp di sept cent mille par weer hmm. sept cent mille xale yi di fa jàng seen dara manqué wut hmm. lekk ba regg naan ba mandi cëpp cëpp cuut cuut cëtëng cëtëng hmm. ba mu ko defee ay at ay million la bi mu waree am xale bu ci war a am diplôme sero nga kon loolu moom te xam nga lu mu daan wax foofu école la boo xam ne doomi barom doomi patron yi fa la ñuy jàngi c'est-à-dire moom xul ne ña fay nekk ay jàngalekat lañ mais daf ne saa moroom yi ñoo fa yóbbu seen doom mu yóbbu samay doom loolu xabaaba la suñ mbàkkee. xabaaba ak ndof la daal. bien sûr. xabaaba la xooloo yow ne école bi gone yi dañ leen war a surveiller parce que gone gi bu fekkee du xiif waxtu ne day lekk bay gàll. gàll mooy muy mm-hmm. reflet wu di génnaat. nga xam ne xale yooyu dem nañ ba àgg ci mel ne ay naawtal naawtal mooy picc mu ndaw moom muy door a judd nga xam ne amagul moom dafa xool moom dafa xool image bi xam li nekk si biir mais nag hmm. xamu ko lu dul rek dafa échec waaw bi mu échec yàlla koy xam kay léegi loolu boo ko defee benn bu fa defee benn at da ngaa war a xool nodd yi hmm. bu bonee nga muñ ba déwén nga retiré wu nga bàyyi hmm. waaye continuer fa rek doy loo nag moo ci gën a kiimaaneeti mais foofu ñu bari dañ ciy def erreur <coughs> maam dañuy gis nit koom day jël doomam mm-hmm. jaar fi ñu war a jaar fépp mu dugg école mm-hmm. mais après loolu nga xam ne moom la mbokk ma defoon wata faqada tayr mm-hmm. nga xam ne doo ay picc sax lay nemmeeku ah. Souleymane ah, ba mu xoolee gis ne maa lii laa aral hudhud ah. am kaana min al ghaibin picc la de comme moom dañ koo sàmmloo njaboot gi sàmmloo njaboot foofu li ñu ci mën a déggee mooy ndekk dañuy tuddee tafaqud nit ki war na doomam fu mu nekk mu koy xam chaque jour bu génnee ñëwaat war naa mën a xam kii bi mu génnee si lan la nekkoon. doon def su ko boo bu ay examen jotee nga xool ay notam. ak notam su fekkee am na lu si war a mën a nga xam ko su fekkee ni laaj na dem nga dem di gëstu mais da si am ñoo xam ne bi ñu dugalee seen doom soxlawaatuñ ci dara lu dul ne examen am na. waaw li ko waral mooy. Hmm. doyloog barab ba ak abiyaas ba moo leen nax. Hmm. takabburul muallim dañ ko wax mutaallim hmm. dañ ko ne mooy lan. fal mutaallimu ida takabbara wallaay laa yenaalu falaa yenaalu bil mulaadi zafara wallaay ndeysaan ñu ne takabbarul muallim mooy nga tànn école bu ñëpp naan wëy wëy wëy te du dara nga dem fa na fa xugg nag di wane ne nga fekk benn école boo xam ne mi ngi ci sa koñ mm-hmm. ka fay jàngale man li muy def nga rus faa duggandoog say morom takabbarul muallim noonu lañ ko jàngate mu mm-hmm. ne nag falaa yenaalu falaa yenaalu bil mulaadi zafara dee ko xool waaw la classe lay e, e, élève la classe la mm-hmm. diw laay àndal diw laay jàngandool diw lay fréquenté am na xale yoo xam ne ñu ngi ci ci ci école yi di jàng mbooleem place yi nga xam ne dafa xéew ci biir ndakaaru yépp lañ xam di sëñ bi wax yéeme na foofu de laa yanaal fi bil muraadi zafara jàll du jàll rek fa mm-hmm. lay mooy bu examen du jàll mm-hmm. su boobaa nag sëñ Mbàkke kon école des koy tànn waaye luñ cay tànn mm-hmm. dug lekk am na kër baay dug naan am na kër baay du tëdd bu neex kër baay la dàqee waaye fu ñu lay yaree di la fa jàngal ñu ne xam ak am ñoo gouverner adduna xam ci kiy jàngi am ci kuy liggéey ku xamul amoo looy doon adduniya des la yilif di la liggéeyloo rek ngay xëye ko wàcc waaye xam ak am ñooy ñaari signes yi nga xam ne ñoo téye adduna bi. Ah, mooy bil ilmi wal kay moo tax benn waay na woon wenn xeet du avancé te yarul ay doomam jàngal leen. wenn xeet mënta avancé ci àdduna te yërul xeet woowu yërul ay doomam te jàngal ay doomam xoolal tey gis nga ndakaaru gi ñu ne président de la république buñ doon seet ndakaarook ay ndonoog ku fi war a sës ak fa mu dëkk na meloon xam-xama ko andi kon pale de la république kenn du ko wetti waaye bu fekkonte ne dañoo teggi xam-xam delloowaat lépp ca cosaan fii lay jaar maak moom ñooy boo ko génn dajee jam ñaajo ñu seet kenn ku ne nooy jëm kon lu ko fukk lim am lu ko fa yóbbu xam-xam mais am na ñu fi juddoo fii ci biir ndakaaru màgg gën koo xam ndakaaru waaye tey ji moo leen yilif awalan li ñu wër nii di tudd lu ñuy lu ñuy moom li ñu tuddee mbokki bawal boole yi marché centre gii rek ak asalem ak tilleen ak feneen foo ci demoon mag moo fa fekk boo ko laajoon moom fu mu jógee daana naan ndoxum déeg bu amee 60 temps daana lekk cere ju amul ñeex waaye tey Dakar Plateau kenn ëpp lu ko fi luñ moom lu ko may am am ñëw nangoo liggéey te képp la. nga xam ne nga xam ne tey loolu même parent bi sax bu xalaatee parcours am. fi mu jaar ba yàlla mayloo ko mu am yenn moyens yi. ba mën a dugal doomam ci école boo xam li ñuy laaj seer na parce que bu ñu seeree te mën a jàngale kooku amul problème. Mm, mm-hmm. parce que loolu jar na ko. Mm-hmm. waaye nag nga dugal ko ngir ni barab bi seer na waaye la nga fa soxla. gise woo ko loolu tam loolu tam suñ ma suñ maxtaar loolu part de part de si si loolu si parents yi lay dellu parce que xale bi moom dañ dañ koo dañ koo dañ koo dañ dañ koo tànnal xamul xamul xamul xamul dara ji moom koo tànnal su alwa ji waaye yow mi nga xam nag yow yaa war a yow yow jaar nga si mbir mi xam nga ni mu demee hmm? yàgg nga si àdduna xam nga expérience hmm. bari na lu ñuy wane loo xam ne boo demee ba si bi doo ko fa fekk ah. pourquoi pas mënoo xóotal nag sa xalaat ba mu xóot ba mu hmm. wóorin la fii li ngay fii yaakaar boo mënul am cent pour cent pour cent nga doog dem jël dugal sa doom mais bu dul loolu yow yaay tayle sa doom. jërëjëf sëñ Mbacke. Hmm. Eh, eh, dafa am li li ci gën a kéemaane sax du loolu. Hmm. parents yi nga xam ne ñi ngi jël seen doom. Hmm. di leen yóbbu ci école yu cher yooyu koo ci laajoon ba muy jàngi ca dëkkam. cinq kilomètres la daan dox ci ak mbuus la daan def ay téeréem ak mbuus. mbuusub toile ngir xam ne bu tawee day tooy. bu fa yendoo ba ngoon xam nga lu lu muy añee. gerte. gerte gerte gii lay lay yëy mhm. su ngoonee bu demee góobar jaasi waaw hmm. ah, yi ci baree bari nga xam ne ñu ngi fii tey jël seen doom di leen yóbbu ci école luxe yi cinq kilomètres lañ daan dox dañ daan yendu àll ndoxam teen lañ daan naan bu ñu amee lu ñu lekk ci bëccëg beeku su néew gerte la ñuy yëy man nga sax jox message Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu anhu ah, su boobaa ba muy dem di jàngi gis nga lam daa xëy di dox si ay kilomètres léegi nag naka ngay naka ngay du génne ci milieu bu mel noonu yow sëñ Mbacké mhm. ak coono bu mel noonu ba yàlla yekkal la nga jël sa doom rek ne ko yow fu ñu abbiyee laa lay yóbbu mais yow nga xam niveau jàng daj ci jàng lu ne est-ce que loolu xalaat la léegi nag école yi baax ku am xaalisu dem ca école ya dara nekku ci ndax école yi baax yu luxe la xëy na xale bi fi muy jàngee bu luxe tam jàng fa mën na faa jële ak luxe ayut kenn du ne kenn bul civilisé kenn du ne kenn bul nekk nit ku am xam ak xàmmee waaye dañ ne la boo koy am na ca xam-xam jiitu mm-hmm. bépp école boo xam ne mën ngaa jël say responsabilité yi doomi jaamur yi ñëw fi yow nga leen doon jox bés bu set soos soos laa koy tuddee soos mooy tufe mm-hmm. baax na waaye nag na nga leen jàng. waaw lañ soxla na am daal. na fa am daal d'accord naa lu mu cher lu mu cher cher. maanaam xam-xam ba na fa nekk. na am bu fa amul nag. Mm. laxasal laxas mooy nga takk say bagage dem te dem dëgg nag waaw ndax lislaam itam loolu la digle ndax loolu trahison la ndax yow da wan nit ñi loo xam ne amut mhm. te gis nga lislaam li mu la wax muy alxuraan wa imma taxaafanna min qawmin xiyaana fambis ilayhim ala yàlla nee na bul xaar sax ñu wor la waaye boo defee ne waa ji ab workat la rek maam retiré la te loolu moom wor dëgg la parce que yaa ngi wane benn image boo xamante si ni mhm. eh, da nga koy jaayee li nga yor mhm. ba nit ñi dugg si biir mel ni ak fiir goo xam ne da ngay da ngay da ngay da fiir ay picc bañ mhm. dugg te fekk liñ soxla amu si mbokk yi loolu lu lu lu doy waar la. Mhm. waaye nag nañ xam ni parent yi am nañ si part de responsabilité nag bu baax a baax a baax. Cheikh mhm. Makhtar bu ñu jógee ci tànn euh, ab jàngukaay. mu des nag xale bi li muy jàng. waaw ah. est-ce que parent bi dana di ko gëstu wala déet parce que li tax ma laaj la ko. léeg-léeg mën nga recevoir nit. koo xam ne bi muy jàng école. Ah. Euh, mi ngi amaale ay cour arabe. yoo xam ay cours arabe lañ koy tuddee mhm. waaye dañuy gis ni kooku des fois bu ñëwee si yow soit mhm. mën naa nekk ab jàngi ñibbi mhm. léeg-léeg nga am loo koy jàngal si diine da ngay jékki-jékki wax mun la dee man kat suñu suñu suñu musée ba nee na nangam ak nangam parce que euh, da si am benn xale boo xam ni dal na ma dafa ñëw di jàng ñu koy ma koy jàngal ab téere bu bu xaw a tolloo ak mu mustawam euh, bi ñu koy jàngal naan ko yàlla kenn la. Mhm. Muhammad alayhi salaam yàllaa ko yónni. Mhm. mu ma noonu ñun suñu musée nee na du kenn. mu ni mu ni bu ne dafa am yàlla mu nekk am na feneen foo xam ne yeneen yàlla ñoo fa nekk. Mhm. nga ne xale bi. maam noonu la si noonu la si insisté parce que nee na na seen seen ki leen yor si wàllu arabiya mu leen jàngal loolu. léegi imagine xale boobu bu màggee si environnement boobu. ñu dëkk ko si nampal. Mhm. di génn si moom ay point ci wàllu diine mhm. di génn si moom ci moom ay point si wàllu diine di dugal laneen mhm. mu di ko màggale te yow parent bi gëstuwoo loolu ba xale bi màgg bëgg a pratiquer loolu nga ne ko du si dal fekk na yow yaa ko gaañ moo tax ma ne li ñuy jàng ci école bi muy ñëw est-ce que jaaduwul xale bi bu ñëwee ngay toog ak moom di xool lan la doon jàng te di ko jubbanti boo demee ba gis loo xam ne lii jëmul kër nag bu la bu àddina nag jaral ngay tay sa doom ci wàllu wàllu diine te lii ma lay wax ni boo gisee ma wax ko te di ci insisté mhm. maanaam du lu ñu ma nettali mhm. maanaam lu ma lu ma maanaam maanaam lu ma gis la mhm. lu ma dund la te ba ma ko gisee itam yemuma si woo na jëmmi parents yi nga xam ne ñoo yilif xale yooyu neen kat na ngeen def attention bu baax a baax ci xale yi ci ñi nga xam ne ñoo leen yor ci école bi ci wàllu dine parce que ñu ngi implante ci ñoom loo xam ni bokkut ak pas-pas bi nga xam ne moom la ab jullit war a seetlu mu ne ma ah bon mu ne waaw mu ne man de amoon naa ci parce que ki yor si wàllu diine daje na ma mu yor benn comportement boo xam daal nu nit di jàngale diine mel noonu jaaxal na ma parce que loolu traité na ma ay yoon yoon ndeko kon lii la waaye yàlla dogal ko ba mu leeree si moom changé na leen école alhamdulilah. lu mel noonu kon dafay jaadu si parents yi xale bi buy dem ak a dikk. Mm-hmm. heure bu ne boo feexee donte amoo jot. Mm-hmm. fexeel ba bu samedi jotee wala dimanche. toogal ak moom lim gëstu ci semaine bi lépp. Mm-hmm. nga jëm see échanger ak moom amaana nga gis si loo xam ni. da ko ko mën a yokkal. waaye amaana nga gis si nga teel ko arrêté te fexe def ay pexe loolu mën deñ